waaw di kii si déplacement bi waaw war sëñ baax ma tas keroog dama laa gis ci làmb ngay bëreeg say mag di leen daan bëree góog say morom tas la mën a dugal ci làmb waaw mais loolu bëgg-bëgg la rek waaw kon kon lu sama ndijaay wax sànq rek dañoo judd si kër gi fekk sama maam di bëre sama ndijaay ñoom Demba fay ak ñoom Babacar ak ñoom Cheikh Benja ñëpp sama grand frère ñoom Gibson waaw ñu fekk leen ñu nekk si métier bi di si bay seen waar quoi di def lu rafet bari sëñ ba kon tamit ñun ñuy ànd ak ñoom di leen toogal cumbukaay di leen teel seen saag yi waaw xamal rek bëgg-bëgg barki yàlla waaw loolu ñu dugal si làmb. nga dugg ci làmb kañ njëkk a bëre. waaw man maa ngi rappelé kii mbapatu kii soq. tournant soq yi. waaw laa njëkk a bëre jël ko. 2018 ma dugg jël jël tournant bi daan boo yëpp booyu yu të si làmb ji yëpp ma daan leen mu tëggaat ma daan ma jël ma jëlaat tournoi bi waaw. dugg ci waaw si lañ teg làmb simple yi tax ñu naan làmb. waaw sant yàlla rek billaahi ñëw gëm-gëm am gëm-gëm waaw grand frère tamit ba ñu nekk xale dañ leen doon seetaan waaw ñu am gëm-gëm ñi dañuy. waaw dañuy dem ba prouver si làmb ba mun a bëre ak ñoom saa saa ma tëddee loolu laa doon moo nekk sama bopp bari sëñ Bàmba waaw. parce que dafa am lu ma ya lu ma jaaxal. tur bi fu mu jógee tur bi tas yaakaar. de si koñ bi la ma nekk xale bu ndaw sam benn grand frère bu ñu naan Baye Matar moom moo ko tuddee fii waaw suñ tegee cent franc cent franc ñi bëre waaw maay maay daan suñ tegee fanweer maay daan buñ tegee deux cent maay daan. mais bu buñ tegee téeméer rek dañ may daan mun ne yow tas katu yaakaar bi waaw looloo indi tas yaakaar bi. léegi rek nga daan waaye buñ tegee téeméer daal ngay bañ a dégg. waaw téeméer nga teg bis bu bari nga daanu ci téeméer. waaw. Hmm. nga jékki-jékki keroog ñu gis la. ci terrain gaal gi nga ñëw dugg si ñu ci bari ci làmb xamuñu la waaye bi nga bëree làmb ja képp ku fa nekkoon keroog bàyyi na la xel nga daan Ibou Senghor numéro 2. waaw loolu sant yàlla rek xam rek nekk ay xale tamit suñ demee si ni ikiri xam sa cosaan waaw grand frère yi ay ñoom soq ak ñoom benz ak ñoom ondu lofu ñëpp dañuy teg lu métti ñi ñi koy déggoo nekk xale. di def deux séances bari sëñ Bamba dañuy cinq heures du dañuy dem géej ngoon gi dañuy dem saal contact gi tërëng moo korsu nag di korsu bu baax di ko ñaanal jàmm. mais sëñ Bamba. li ma jaaxal mooy da njëkk a sa combat bi nga bëree keroog euh, Adrien Senghor gaal gi bi nga bëree gaal gi keroog da nga daan bi nga daanee laaj ponkal yi ma ne ah mbaa boo amee ponkal yi dina baax ci yow ñu tirage jékki-jékki quart de finale nga am kan Ibou Senghor numéro 2 mais bëri bi moo ma jaaxal façon bëri bi bàyyi ko sa bopp muy bëreeg yow di lay yëkkati te mënu daan. dañuy nekk ay xale rek kon lu ma la wax léegi rek lu ñu tegoo ñu ñu tegu ko waaw di liggéey lu metti barki sëñ Bamba. billaahi. nga jugee nga jóge nga jugee foofu euh, ñëw keroog ci 5 millions yi 10 euh, millions yi ñëwoon nga yu jag si production. ñëwoon naa 10 millions yi booy kii kii numéro 2 waay Kaw Cissé numéro 2. Kaw waaw. waaw moom la éliminé waaw. fu mu la éliminé. huitième de finale. waaw trois appuis sax laa teg. nga bëreeg booy fay final mu daan la. waaw mais dara lool mooy lool du ñàkk jom ñun ay xale lañ trois compétition rek laa ñëwagul laa waaw. keroog cinq millions yi ku daan kon lu ma la wax rek huitième de finale laa huitième waaw quart de finale. quart de finale waaw la ma waaw. Franc moom daa mel ni day jàpp rek sëq sànni. waaw noonu la demee mais yàlla baax na. waaw ay xale lañ. daa mel ni am na loo ko téyal de. no teelu ma ko dara ñoom suñu grand frère lañ ba ñuy bëre boobu ñu ngi doon booy ndaw ba sëñ Bamba man 2000 laa judd. loolu ma jaaxal ku ma ko wax mu ne ma loolu mënut nekk man leen nee na euh, tas yaakaar nee na 2000 la judd. 2000 laa jamonoy El xamu ci dara. 2000 laa judd. 2000 mais sant yàlla bu baax. 2000 ba 2020 20 ans la. Hmm. yaa ngi dugg say 20 ans. waaw loolu la yàlla dogal. kàttan gi foo ko jëlee macha allah. non dara sant yàlla rek ñun moom waaw kon lu ma la wax rek dañuy liggéey. waaw dañuy liggéey lu metti waaw di contact ak ay ñoom benz ñoom soq di grand frère yu baax nag. laay. duggagoo arène. non duggaguma arène. kañ kañ nga fas yéene dugg ci arène bi pare nga wala pare. mais yàlla baax na maa ngi xaar rek xale laa waaw. Hmm. pare nga wala pare goo laa. instant moom pare naa. boo gisoon promoteur bu tëgg sa combat léegi nga jël. suba suba suñ ma tëggaloon kombaa ma bëre suñ ma tëggaloon combat suba dimanche ma bëre ko. waaw ndax xale làmb mooy suñu métier. Ah, man de loolu jaaxal na ma ndax xam naa ni ni ngay bëree ci làmb simple yi boo duggee ci arène bi bu dee loxo yi neex na foo dóor buntu feeñ làmb moom dinañ la ci dinañ la ci teg loxo. <laughs> làmb yaakaar nañ la de xaw ma nag parce que mbër d'habitude buy waaja a doon mbër lépp lu koy def mbër loolu lay def waaye bu demee ba doon mbër lépp lu koy yàqal moom lay dox. waa loolu dëgg la amee ah, kon lu ma la wax rek. waa ñun dañuy déglu ay conseils lu ñu tere ñu ba lu ñu digal ñu def waaw. di gërëm sama ndijaay bi Babacar Adoli di gërëm grand Demba Faye di gërëm grand yu si saal bi yëpp Paul Ndiago grand Tafa bari sëñ Bamba line moom ba nekk booy la mu commencé di yóbbu mbapat ay ay ak suukar ma koy jël billaay keroog tournant yi ñu teg fii yëpp maa ko jël sëñ Bamba. fi mu toll nii ci làmb lan nga jàpp ni. moom nga war a def ak lan ñaata séance ngay entraîner par jour sànq bi ma la wooye da nga ne ma maa ngi saal jugee goo saal ba 15 heures ngay doo jóge saal ban heure nga dem saal ak ñaata séance ngay def par jour. non man kon lu ma la wax sànq deux séances laay def deux séances laay def 5 heures du matin géej ngoon gi ma dem contact gi mm, waaw. 5 géej ngoon nga dem. contact waaw. lan mooy sa ambition ci làmb fan nga bëgg a yegg ci làmb. waaw man man moom waaw fu gaa yi bëgg a fu gaa yi toll rek fa laa bëgg a yegg si làmb waaw téye làmb ba sëñ Bamba waaw téye ko. xam nga lu koy maye. waaw xam naa ko tak waaw gaa yi ñu ma siy jaarale luñ ma kon lu ma la rek luñ ma tere ma ba luñ ma digal ma def waaw. loolu moo la koy may. waaw ak téye sa bopp xam fu baax fi ngay kii waaw. noo gisee wasaare làmb waaw wasaare làmb moom kontaan si ñoom rek waaw ñu ngi bàyyi seen waar ba sëñ baam xam nga lii tamit yi waaw yombul quoi nit bàyyi yitteem bàyyi lépp waaw ngir nit ba sëñ Bamba waaw am leen jàmm rek. am yaakaar ci mbër yi nga xamante ni ñooy génn ci ren ci saison bi parce que bu li nga def keroog ku la xool xam ni ku la jàppale nga doon champion macha allah ci gabari bi ci mën bëre bi ci ci dégg gi boo duggee. ndax koy xool lay xam ni kii mbër la xanaa dañ lay tàggu bàyyi la nga tàggatoo. waaw waaw sama copain bu sama xarit bu may àndal guddeeg bëccëg waaw papam dafa wàññeeku keroog ci dimanche bi ñu ngi koy wax Mbaye fay di ko wax yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana waaw metti na quoi ba sëñ ba waaw di di sama sama grand sama gaañ sama lépp Sidiya Sonko day sonn si man billaahi di gërëm sama grand frère ñoom Baboy ñoom Abo gaa yëpp maa ngi leen gërëm Amet sama ndijaay njool mi mafia bi yëpp waaw malien yi bari sëñ Bamba dañuy dajale seen xaalis di ma ko jox billaahi wallaahi taala maa leen gërëm bu baax waaw. Saata production dafa organiser le 18 bii ñu jëm fële ci Mbour dinga dem. waaw bu soobee yàlla kon lu ma la wax sànq làmb mooy suñu métier waaw. nooy demee dangay dem seetaan wala da dakk takk ngem. waaw onkal dañ fay wàcc. waaw mais ñun ragaluñ lool ñun ay xale lañ. waaw. waaw di san sama yaay nag di sant sama yaay bu baax day sonn si man. Faata production bi nee na ñi nga dajaloon Iba Mar Diop ñi nga dajaloon terrain gaal gi ñi nga dajaloon Adrien Senghor ñëpp dinañ ñëw te buñ la jàppee dañuy fay. waaw ñun ragaluñ lool waaw maa leen a xaar rek ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm ba bis ba rek waaw ñun moom kon lu la wax rek ay xale lañ di gërëm grand yànde bu baax a baax a baax billaahi di ko gërëm bu baax moom moom jàmbaar la day jàppale booy yi booy yëpp lay jàppale waaw. malien bi ngay wax lan mooy malien bi. waaw malien yi loolu fañ si club la rek. waaw doo dégg waali naan malien yi. waaw ñii la président baa ngi ne le grand laan billaahi gaa yaa ngi nii waaw di gërëm Baye Fall yëpp nag. waaw ay malien lañ. waaw. waaw la deme sa combat arène waaw gis nga de waaw. di gërëm Baye Fall yëpp kon lu ma ko waxee sànq. di gërëm Baye Fall yëpp daayira mardi beeg daayira sibsi beeg mu kabaroo yeeg ñëpp maa ngi di gërëm. waaw ba sëñ baam di gërëm boo yëpp waaw.